الله الله الله الله يا مولانا الله mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax di leen wax salaamaaleykum di leen dalal jàmm ci ITV ni ko baaxoo di defoo saa su nekk gërëm nañu leen bu baax a baax ci tànneef gi ak bàyyi xel gi di leen dalal jàmm seen émission bii di les grandes conférence ñu fas yéene waxtaan ak yéen mbokk yi ci li nga xam ne mooy tolluwaayu jamono ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy tolluwaayu àdduna ak tolluwaayu réew mi di ci ànd ak i borom xam-xam yu mag yu sénégalais yëpp ràññee seen taxawaay ci Sénégal waaye itam ci bitim réew mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen dalal jàmm ci bile jotaay waxtaan ma ci ànd ak imaam Birame Pouy imaam salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Baba Amath kontaan bu matalee ñëwaat fii. n'est-ce pas janoog pencum Sénégal ak pencum waa àdduna ci seen émission bu bees bi nu tuppee les grandes conférences euh, les grande conférences nag muy euh, loo xamante ni sunu ay borom xam-xam ñoo ko sosoon mu nekkoon loo xamante ni dañu bëgg mu gën a yaatu ba pencum àdduna ñëpp di si jëriñu xam naa bu su ko demee docteur Cheikh Gueye dina ci ñëw ñaam ay kilifa yoo xamante ni tey tamit ñooñu ñëw ndax ñu. wéttali ci émission bi ñu duppee les grandes conférences sëñ Baba les grandes conférences nag muy nekk benn émission bu bees boo xamante ni na nañu mu nekk une émission mensuelle muy am weer wu ne eh, mu nekk les grandes conférences boo xamante ni par rapport ak thème bi nga xamante ne mooy xew ci àdduna rawatina Sénégal gi ñuy yeewoo am na yu mbir yoo xamante ni yu bëree dafay xew dañu bëgg nag les grandes conférences ñi nga xamante ni ñoo ca war a wax ñu ci wax parce que loolu moom moo méngoog li àdduna xamoon en tout cas ñu nu yaree nit ci diine fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamoon ahla zikri mooy les experts ñi nga xam ne ñoo xam ñoo maîtriser ñoo ciy wax léegi daana conférence donc seuls ñi nga xamante ni les les experts vont prendre la parole pour que penc mi mën ci jëriñu je pense que baaba loolu mooy loolu mooy euh, philosophie li nga xamante ni mooy les grandes conférences muy am mensuellement maag yow ñu koy ñu koy taxawee Euh, baaba nga nekk benn journaliste bu ñëpp ràññee fii ci kër gi ITV waaye itam sëñ Cheikh sëñ Cheikh Gueye xam naa dina jël parole bi moom mu nekk su modérateur parce que boo xoolee li ëpp ci les grandes conférences moo nekk modérateur bi ñoom ci seen yaatu dënn parce que itam loolu moom du am solo la maanaam borom xam-xam yoo xam dañu laayee biir waaye yaatu dënn mhm. bëgg ñëpp mën cee jot loolu moo tax itam ñëw ba fi ITV incha allah sëñ Cheikh euh, dinañ ñëw kàddu bu baaba jërëjëf euh, imam Birame Pouy di ko gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi nga xam ne doon na ko tàmbalee tey nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo méngoog jamono waaye tamit tolluwaay réew mi ak tolluwaay àdduna daal di ko laaj ñu ndil leen ko fii ngir waxtaanee ci muy l'humanité face au Covid-19 réinventer le sens et ré et retrouver l'essence et retrouver l'essence de la vie sur terre maanaam nan la ñuy def ba li nga xamante nii moom moo nekk jamono ji ci àdduna waaye itam ci Sénégal di mbas mi taxawaay bi nga xam ne askan wi war nañ ko ci amee ngir am beneen gis-gis bu bees waaye tamit taxawaay boo xam ne bés buñ ci taxawee dina doon ëllëg bu mucc ayib waaye àdduna boo xamante ne ni ku ne ci ñun dina ci mën a dund dund ak sa teyaay basan ak sa teyaay ak sa teyaay bakkan mu nekkoon mbir moo xamante ne nii mbir mu am solo la ñu ci ànd ak comme ni ko oustaz Birame Pouy waxee léegi léegi docteur Cheikh Gueye docteur Cheikh Gueye tamit euh, ñu miin ko lool ci conférence yu am solo yi miin ko lool ci xam-xam bi ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ëttu diine ji docteur ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateur yu ITV. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di sant bu baax Biram di sant bu baax euh, Baba di leen euh, nuyu di nuyu waa réew mi yëpp. di ci jiital ñi nga xamee ni ñoom laa bokkal plateau bi di ci euh, jiital aussi kilifa yi nga xamee ni yëpp ñoo taxawee réew mi muy kilifa diine yi di kilifa aada yi di aussi borom xam-xam yi nga xamee ni euh, kuy sotti bëgg jëm fu baax bëgg jëm fu leer euh, di nga leen bàyyi xel mbas mi tamit nekk jamono joo xam ni. Euh, xalaat yëpp jublu na ci ñoom ñu leen ci déglu ci seeni jàngat ci feebar bi ci boppam ci paj gi leen ci euh, déglu ci jeexit yi nga xamee ni euh, feebar bi ak yaatu gi mu yaatu ak wàlle bi mu mën a wàlle aussi ñoom it ñu joxe joxe ci lu bari seen xalaat ñu ne nag loolu des na ci dina ci baax ñu bañ koo yemale rek ci mbas mi waaye mu doon euh, loo xam ni dañ koy wéyal euh, ba fuñ ñu toll ñuy gën a fésal suñuy borom xam-xam di gën a di leen gën a déglu di leen gën a bàyyi xel euh, loolu moo tax a jóg émission bi. ñu koy rafetlu bu baax ci ànd giñ ci ànd ak ITV. docteur waaye nag ni nga ko waxee mu nekk thème bu am solo thème boo xamante ne mën nañu wax ne dafa ñëw ci waxtoom muy l'humanité face au Covid 19. loolu moom ku ne am na ci taxawaay waaye ku tam ku ne am nga ci gis-gis nan la ñuy def kon ba mu nekk lu am sens waaye tamit ëllëg goo xam ne suuf si dina ci neex a dund askan wi maanaam dinañ dund dund goo xam ne dund gu ñoŋ lay doon ñu ci ànd nag nag ay borom xam-xam xam naa dama lay bàyyi rek nga présenté ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom xam-xam yi ci fas ànd incha allah. waaw euh, li li li nga xamee nii moom la euh, lii nga xamee ni mooy émission les grandes conférences di wéyal mooy daje yi nga xamee ni euh, tàmm nañ ko gis ci këru diine yëpp ci waxtu wu ne muy ci màggal yi muy ci gàmmu yi muy ci waajal laylatul xadar euh, ak yeneen i euh, moment donc euh, ci loolu wéyal googu nag dafa am solo ndax waruñu yemale rek suñu xalaat ak sottante xalaat ci ay moment dafa war a nekk loo xamee ni lu lu lu sax doon loolu it buñ ci taxaw dañ ci ànd ak ñi nga xamee ni ràññee nañ leen ci seeni xalaat seeni bind ci seeni taxawaay euh, ci askan wi euh, donc ci ñooñu euh, ci waxtaan wi nga xamee ni mi ngi jëm ci li nga xame ni nii moom la mbas mi war a doone jàngat ci bépp nit waaye aussi ci bépp jullit woy gëm naka la ko war a gisee ndax warul doon jamono walla occasion nit ku ci nekk xoolaat sa bopp yow sa bopp xoolaat sa bopp ci sa digganteek sa boroom xoolaat sa bopp sa digganteeg say euh, moroomu nit ak yeneen jàngat euh, yoo xamee ni buñ bu bu fekkee jàngat nañ ko mën nañoo dimbali ci mbas mi bañ a nekk rek loo xamee ni dafay jaar dem mm-hmm. ñu koy fàttaliku waaye day doon euh, loo xam ni day nekk point de départ mm-hmm. pour ñu xoolaat suñu bopp pour li ñuy tuddee introspection waxtaan woowu nag ñu ngi ci bëgg ànd ak ñetti kàngam euh, kàngam bi nga xamee ni moom laa ci njëkk présenté mooy sëñ Sam Bousso ñu koy wax inspecteur Sam Bousso moom euh, fii la jànge Sénégal euh, doon koo xam ni dafa jaar ci daara yi nga xamee ni moo nekk ci réew mi def tamit li nga xamee ni mooy cycle secondaire ak universitaire fee ca Égypte euh, fa la amee baccalauréat am fa tamit ijaza ci droit musulman ak euh, foofu ñuy wax faculté de la charia euh, institut Al-Azhar bu Caire ku nekk xam ko sëñ Sambou Sow am na tamit master 2 en études islamiques faculté d'Imam Ouzaï à Beyrouth Liban mi ngi nekk actuellement inspecteur de l'éducation chargé du bureau de l'enseignement arabe à l'inspection d'académie de Thiès nekk aussi ku am solo ci kuréel googu ñuy wax raw Rawdu Rayaahin muy kuréel gi nga xam ne ni mooy saytu mbiru xam-xam ci biir yoonu murit euh, moom mu nekk ci euh, coordinateur maanaam ku ne ràññee ko ci ci ay euh, ci xam-xamam ci dalam moom kon moom mooy suñu premier invité mm-hmm. suñu deuxième invité Euh, ñi ngi koy wax professeur Mouhamed gallay Ndiaye moom mu nga mi ngi nekk euh, professeur nekk aussi imam foofa ca Bruxelles mu am maitrise ak licence en théologie à l'université d'Al-Azhar moom tamit jaar na Al-Azhar am tamit DEA philosophie à l'université de Liège foofu ca Belgique nekk aussi fi mu nekk nii doctorant à l'université euh, dal Awza Awzaa'i Beyrouth bu liman Euh, professeur Mohamed Galaye Ndiaye nekk na aussi directeur de l'institut Al Mihrab pour la formation en sciences islamique nekk na professeur ci institut yu bari Belgique euh, jiite fa tamit ay kuréelu imam ak euh, ulema yu nekk foofu ñu réew ma ak kilifa réew ma bàyyi ko xel bu baax a baax ñuy bég bu baax di ko fi accueillir ki nga xame ni moo ci topp muy soxna faatu Sarr Sow ku nekk xam na ko ci réew mi daanaka jarul présenté mu nekk professeur boo xam ni euh, moo nekk directeur directrice de l'institut genre et famille euh, def euh, formation bu yaatu bu diversifiée am doctorat ci anthropologie ak sociologie politique am PhD aussi ci li ñuy wax travail social maanaam ñii nga xam ni ñoom ñooy liggéey ngir dimbali askan wi. Euh, travail social et politique sociale am aussi ci lu ñu bëri xamuñu ko aussi DEA ci mbirum science de l'environnement euh, am na aussi euh, maîtrise ci économie ak développement donc mu jàngale foofu ñuy wax namure ca Belgique door ñëw fii xamee ni moo di IFAN Cheikh Anta Diop depuis 1999 mu nekk fa directrice de recherche créé fa laboratoire bi ñuy wax genre ak recherche 2004 Euh, boobu laboratoire fa la euh, retraité euh, kon ñu koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Saam di nuyu Mouhamed galaay Ndiaye mi ñuy déglu di leen delloo kàddu gi ñu mën leen ko jox. jërëjëf docteur Cheikh Guèye imam Biram Pouy dégg nga li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee tey muy thème bu nu jàpp nekk thème itam bu am solo yow ban gis-gis nga am ci thème bi laataa ñuy ñëw ci ñi nga xam ne ñoom la fas yéene ànd ci waxtaan wi. jërëjëf sëñ Baba amaat kontaan di matale. di di di kontaan ñaari yoon ci présentation bi nga xamante ni docteur Cheikh Gueye mi ngi koy ñi nga xamante ni ñooy suñu ay kilifa euh, je pense que am nañu ay royuwaay royuwaay mooy ay modèle ñoo xamante ni boo nekkee jeune day baax nga xam ni jàng day bënn jàng day mokk jàng day wér euh, parce que loolu rigueur boobu rigueur scientifique boobu dafa baax ci lépp mooy maîtriser li ngay xamante da nga koy wax euh, donc les grandes conférences aussi objectif bi loolu la fexe ba ki ciy wax mu wax lam cee wax te bu ko ca waxee ñëpp mën cee jëriñu euh, docteur euh, Cheikh thème bi nga xamante ni moom nañu indil tey bu n'est-ce pas duñ ci duñ ci yaatal sax dañ koy ubbi nii rek bàyyi professeur yi ñuy wax ak kilifa yi euh, bu ne l'humanité face li gën a yéeme sax mooy au Covid ou bien la Covid voilà un mot boo xamante ni finalement dañu trouvé li nga xamante ni mooy genre am parce que moo bu bees la dafa dafa samp ñëw mu nekk jeu de mots moo boo xamante ni daanaka moo boo xamante ni c'est le vivre ensemble Euh, parce que àdduna de vivre ensemble nu doon dundee moo que ay chiffres la ak ay euh, yi ni que Covid terme la boo xamante ni mooy coronavirus 19 euh, parce que 2019 bi fin bi gis ngeen après parce que ñu dem ba ñëpp naan la Covid la Covid parce que terme boo xam ne c'est un terme scientifique après ñu ne léegi français récemment on dit Covid. récemment on parlait de au Covid donc boo xoolee même thème bi ñu ko libalee maintenant euh, am nañ droit wax à la Covid parce que ñoom ñoom ñi nga xamante ni ñooy ahla zikri ci foofu ñoom ñoo nañ wax la la Covid. pourquoi même même terme boobu nga xamante ni bu nekk jamono ji dem ba jël benn mot dugal ci français di ko wëtal genre mooy wane comment mbiri lañ bett bon donc bu ne humanité mooy ñun ñun ñi nga xam ñoo dëkkee àdduna. boo xoolee nag bu buñ ko tënk tënkee ci àdduna dafa am les les deux grands acteurs yoo xamante ni ñooy les principaux responsables mooy nit ak jinne kan donc bu nu ñëwee tey ay en tant que ay humain xam naa professeur Sambousa professeur Gallaay ak professeur n'est-ce pas Soxna Fatou daan ci ñëw leeral ka mais li ma gën a loo xel rek mooy on a on veut parler de l'humanité l'humanité nag mooy l'homme l'homme mooy principal acteur bi nga xamante ni moom mooy vicaire d'Allah mooy xalifa yàlla donc moom mu nekk responsable depuis sa njëlbeen euh, les autres n'ont pas n'ont pas voulu euh, accepter ça mooy yàlla di gaaral li nga xamante ne mooy asamaan si kii fa abayn an yahmilnaha ñoom ils n'ont parce que yaakaar nañ xam du dis la mais doomu aadama mu jël ka mais moom mu ñëw mu nekk sàggan est-ce que sunu sàggante mooy jur lii yëpp est-ce que àdduna bi maîtriser nañ ko est-ce que xam-xam bi noonu wax dëgg la sunu passe fan la toll inter je pense que interrogation yooyu yëpp nañuy posé ngir sunu professeur yi euh, sëñ Baba ñu leeral ñu ko. Euh, jërëjëf bu di la gërëm bu baax a baax imam Biram Pouy euh, docteur Chank wax nga ko présenté nga ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Sam Bousso Abdourahmane nekk koo xam ne itam ràññee nañ ko ci taxawaayam waaye itam ci xam-xam bi ginnaaw bu ñu la gërëmee bu baax nuyu la dalal la jàmm suñu plateau dégg nga waxtaan wi ak thème bi ñu xam ne fas nañ ko waxtaanee yow mi nga xam ne borom xam-xam nga ban dégg ngay am gu njëkk ci comme thème yu ni mel bu buñ ko jàppee jagleel ko askan wi ku nekk si ñun war a am loo ci mën a jëriñoo. bisimilah <clears throat> bisimilah rahmaani rahim jërëjëf sëriñ Baba ñu ngi lay nuyu nuyu Oustaz Birame di bég lool nag ci ñëw tey ci ITV di nuyuwaale kilifa yi ITV yi di leen sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci rajo bi ak ci télévision bi di am mbégte ci teew ci jotaay bi rawatina di ko bokk ak nag suñu mën nañ ko wax jëwriñ <laughs> Euh, docteur Cheikh Gueye di ku ràññiku ni ngeen ko waxee waaye nag rawatina soxna Fatou saw Sarr nga xam ne yàgg nañoo topp ay taxawaayam ak i liggéeyam euh, kon tey ñi ngi am bégte rawatina thème bi nga xam ne ni ngeen ko waxee ni ka campe <laughs> na ko très bu am solo sax euh, mooy Covid 19 bi xam nga sax yéen a ngi dégg sax xeetu débat bu ci am ci catastrophe la walla crise mm-hmm. ndax. ndax ñu jàpp ne crise moom buñ ci jógee mbir mi xay mën naa delluwaat doxe nam doxe woon waaye catastrophe buñ ci jógee moom mbir mi fokk mu changé moo tax nag ci ñëpp jàpp nañ ne bu ñu jógee ci Covid 19 moom àdduna bi dina dina changé kon toog waxtaan ci lu demee noonu lu ama am solo la ndax ñaan luy lu loo xam ne nar naa soppiku nekk acteur ca soppiku ga muy am dafa gën a am solo nga subir ko mu ñëw rek yóbbaale la bu boobaa doo ca mën a am benn taxawaay boo xam ne bu am njariñ lay doon mais da ngay rek subir conséquences yi jàpp naa nag lay tax loolu du mën a am mooy waxtaane ko surtout boroom xam-xam yi waxtaane ko rawatina nag gis-gis yu wuute waxtaane ko ndax àdduna bi comme ni nga ko waxee lépp dafa jàppaloo fokk boo jëlee benn approche rek mën ngaa mën ngaa mën ngaa mën ngaa juum moo tax euh, waaye bu fekkee boo defee approche politique approche scientifique approche philosophique approche religieuse yooyu yëpp kenn ku nekk angle ba nga koy jaare bu boobaa buñ ci buñ ko toggee segal ko lu am solo mën na caa génn moo tax vraiment thème bi moom ñi ngi koy rafetlu ak fii ñu ko tànne surtout ñu dugal ko nag ci les grandes conférences ndax les grandes conférences yi dafa am historique ci ci ci ci diine ji ci Sénégal ci këri diine yu bare bari ñi ngi organiser ay grandes conférences ni mu ko waxee léegi Touba. rawatina sax laylatul qadr gi nga xam ne soxna May moom Mbàkke moo ko doon moo ko daan organisé ci Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma di ko taxawe mu mel ne loolu sax li changement bi ci changement Covid yi la bokk. <laughs> ndax dañ daan def rek daje toog di conférence ay nit teew mais comme changement jamono indi na léegi conférence yooyu léegi mën naa dem ba nekk nii àdduna bépp du ci jot ci nekkatul ci benn moment. boo xam ne moom rek fa lañ koy def nit ñi daje. kon gis nga rek déjà habitude yi mi ngi tàmbalee changé. muy doon lu am solo loo xam ne xay na bu ñëwee ci waxtaan wi xëy na dama doon nuyoo rek. fekkee ne mais mais professeur euh, euh, gis nañ ni yow sa xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu diine. parce que bu si kanam daana ñëw ak professeur ci wàllu sociologie anthropologie diine on parle diine bu nee diine nag mooy c'est un peu euh, loo xamante ni nit ki la ak boroomam Euh, yenn saay sax yenn saay yàlla yenn jaamu yàlla yi mu jël ko wane ni moom rek moo koy fay fa inna sa mu li ana ajisi bi c'est tellement intime lekk ak naan c'est intime donc li ngay fas ñu ne sax yéene kenn du ko wax donc c'est intime mais benn impact l'humain en tant que tel mu choisir nekk un religieux ak catastrophe wala crise ñëw ci environnement bi waaw kay lu am solo ndax xam nga boo ne religion rek dafa am lu ko lal mooy gëm-gëm mooy foi pas pas-pas boobu euh, la ci jiitu mooy nangu ne am na ku ku bind mooy créateur am na loolu nag dafay bari lum laaj ci taxawaayu nit ki ndax boo ndax xam nga ki ne man nit mën na ne scientifique la mbir mi kat nature bi moo ko indi mais ki gëm moom gëm ne am na ku bind àdduna bi day gëm ne lépp lu am rek loxol suñu borom bi ko bind mi ngi ci kon pas-pas boobu nag moom ci ngay basé wu ba ne ki bind kon moom am na sañ-sañ am yu muy doxal ci biir lim bind kon bu ñu xoolee histoire humanité ay catastrophe yi fii am ay yenn phénomène naturel yi nga xam ne nit mënu koo maîtriser da ngay xam ne kon ki bind moom loxoom a nga ci mais nag moom ginnaaw nee na ma binduma dara ngir fo afa naa ko mu abasan binduma dara ngir fo kon lu mu def rek ñun war nañoo taxaw xool lan lañ ci war a jànge ak lan lañ ci war a dégg parce que yàlla neen du fo fowut fowul kon munuñu munta dara munta xew ñu jàpp ne lii hasard rek la amul lenn luñ ci mën a dégge mhm. te bu ñu xoolee sa jamono bu nekk histoire doomu aadama yi ciy xew dafay soppi gis-gisu doomu aadama ci ni muy dunde soppi dégg-dégg bi mu am ci dund gi lan la tegtale loolu it dafay indi soppi ak soppiku ci taxawaayam mhm. ndax soppi soppiku ci com maanaam doxalin bi doxalinam comportement mënoo koo soppi ca mentalité soppiku mentalité mënta soppi mënta soppiku te amul yëg-yëg bu lal soppiku mantalité mhm. boobu kon nga xam ne lu mel ne covid lii bu ñëwee tey lu bare bare bari mën nañ ko cee jàng surtout ci wàllu ci wàllu ci wàllu diide mhm. ndax bu ñu xoolee diine dañ ko mënta génne ci dund gi mbir moo jël bëgg koo traité génne ci diine dana la rattrapé waat mm-hmm. boo xoolee tey débat Covid bi diine ji moo ci gën a saf man nga ne mm-hmm. xam nga boo xoolee débat nañ tëj lieu de culte yi ko ubbi euh, ndax nit ñi euh, li leen seen diine digal ndax dëppoo naa ak li li mesures yeeg yooyu mm-hmm. loolu dangay xam ne kon diine ji saf na ci parce que diine dafa man a jeexital ci comportement ci comportement doomu aadama kon Covid bi bi ñëwee liñ ci war a njëkk a jànge mooy suñu borom dafa am ñaar yu wax yoo xam ne da nga ko ciy gis xam nga suñu borom dafa xuliqal insaanu daifan suñu borom dafa bind doomu aadama mu nekk ku faible mais faiblesse doomu aadama feeñ na tey lekk rek soxna Fatou bi koy wax rek mbir mi delloo si ñu ñu doon nekkati ñu ko ay nit lañ donte nag lu tax nit ki di mel ni day xaw a dépassé état boobu bu fàtte ne nit kese la mooy doole ji ko yàlla jox. Ah, wa saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi la l ard jamian minhu kon yàlla mu wëlbatiku tàggatal doomu aadama àdduna bi fi ne ñun bu ñuy maîtriser nature bi di def lu nekk daa fekk suñu borom ci pas su jullit wala pas-pasu ku gëm yàlla da fekk suñu borom moo ñu jox force yooyu si lu plan intellectuel si le plan physique sur plan yu bare bari yàlla moo ñu ko jox kon moo ñu tàggatal àdduna waaye toujours mu ñuy fàttali ni suñu néew doole bu ñu demee ba suñu borom moom lépp ci loxoom la nekk léeg-léeg mu fàttali ñu mu fàttali ñu boppam. Mhm. kon kon professeur da nga gëm ni lii eh, catastrophe ou crise après maanaam yaa dama lay laaj sax yow loo ko jàppee. da nga jàpp ni kon. Mhm. c'est c'est cent pour cent religieux. yàlla moo bëgg wax ak ñun yow foofu nga koy angle bu nga koy yóbbu. waaw boobu ci pas-pasu jiite mooy li jiitu ndax boobu nag dafa dul isolé yi ci des maanaam gëm ne yàlla moo ko def loolu dafay impliqué wu nga bàyyi xel suñu borom waaye nga bàyyi xel li la suñu borom digal ci taxawaay bi ci war a am. parce que yàlla mi nga xam ne xam nga bu ñu delloo xëy ne bu ñu gënee xootal ci kanam dinañ ci ñëw mm-hmm. yàlla mooy xam ne am na cause yuy waral ay catastrophe di am xam nga jàng nañ ci xadis yonent bi sallallahu alayhi mu ne léeg-léeg ay nit buñ dee mooy yàlla di ko fésal am ñu fa nekk man koo arrêté te arrêté wuñ ko loolu dina waral ay mbas di wàcc loolu tey buñ taxawee xam nga baat baatu mooy yàlla ñun dañ koy dañ koy faral di firee rek si maanaam niveau individuel nit ki naan na lu mu wut a naan lekk lu mu wut a lekk def na lu mu wut a def ay péché direct mais gën naa yaatu mooy yàlla ndax corruption façade mooy yàlla la ci ñun dañ koy bàyyi xel dañ koy a jëflanteeg nature bi suñ ko wàccee mooy yàlla la ci loolu ñu duñ ko calculer waale mooy yaata waaw waaw ndax léegi sur le plan collectif péché yooyu duñ ko duñ ko duñ ko bàyyi xel dañu jàpp ne moom mooy li nit ki def moom diggam ak yàlla parce que li ñu jàppee ne nit ki diggam ak yàlla dimension boobu rek mooy diine déedéet mais dimension diggam ak yàlla mais dimension diggam ak nature bi dimension diggam ak nit ñi loolu lépp ci diine la bokk. Mhm. loolu lépp ci diine la bokk tey xam nga am na sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu bay du mu wax bu am solo boo xam ne du ni ñu koy firi dañ koy firi firi mu xaw a superficiel. Mhm. mooy waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa. jooju créature bu nekk sàmmoonte jaag àqi créateur bi. ñun dañuy wax nag na nga sàq na nga sàmmonteeg ak aqi nit ñi na nga sàmmonteeg aq yàlla ci nit ñi mais créature du nit rek du nit rek mhm. bi ci la bokk garab yi ci la bokk géej gi ci la bokk mala yi ci lañ bokk lépp ci lañ bokk léegi lenn lu nekk nag nang ak aqi suñu borom boo ko ca sàmmonteeg moom xam nga ki defar portable bi am na notice bu mu defaraale yow moom mi ko fabriqué nee na nañ koy doxale nii mais nature bi yàlla mi ko sàkk am na nu ñu digal ñu war a jëflante ak moom mala yi yàlla mi leen sàkk am na nu ñu jëflante ñu war a jëflante ak ñoom ñoom nag bu fekkee ñun suñ coobare la ñuy jëflante ak loolu léeg-léeg loolu moom la ñun ti wax ne loolu bu ngeen koy def ay catastrophe mën naa wàcc mooy covid 19 catastrophe ou crise fi mu ne nii dama ne débat la boo xam ne ñu ngi koy posé mhm. kenn ku nekk nag àngal ba nga cay taxawee xam nga am na ñoo xam jàpp nañ ne mën nañ koo maîtriser buñ ko maîtriser mbir mi de delluwaat normal ñu dundaat dundaat nañ doon dundee kooku day jàpp ne ab crise la buy paase rek waaye ku jàpp ne àdduna bi moom à partir de la Covid 19 fokk mu changé dane lii ab catastrophe la boo xam ne ndax bu ñu xoolee ñu ngi jàngat histoire événement yu mel noonu mais bu ñu yaatoo te sax bu ñuy xool tey ñu ngi ne 7 million fi mu ne nii affecté na leen wala lu topp. 8 millions depuis dem. exactement kon jégg na nga xam ne kon pays yim laal lu baree noonu. lu tënkee adduna bi nii mu tënkee adduna bi yaakaar nañ ne musta am est-ce que guerre mondiale sax mos tënkee woon na adduna bi nii kon nag lu mel noonu événement bu toll noonu dangay jàpp ne mën nga ko jàpp catastrophe ndax xoolal conséquences yu muy yi mu indi sur le plan économique xay na sur le plan social dinañ ci ñëw mhm. ku xalaatoon ne nit koo xam ne da daan xëy di wuti lu dundee dina toog ñetti weer lam doon jumtukaay ba mu doon liggéey ñu ne ko doo ko doo ko liggéey ñetti weer mu toog ko loolu ku xalaatoon ne ay ay événement yoo xam ne dañoo jàppoon ne ay ay ay ay ay ay ay coupe du monde ay yu rëy rëy ay ay ay umra ay aj màkka ku xalaatoon ne lu mel noonu tey adduna dañ àgg ci ñu ne loolu ñu ngi laam-laamee dañ koy annulé wala dañ ko annulé ay màkka ci misaal kon loolu mënuñu koo jàppee rek crise bu gën na sori crise gën na sori crise gën naa xóot gën naa xóot gën naa xóot crise jërëjëf euh, di ko gër bu baax inspecteur Sam euh, bu Bousso Abdourahmane ci waxtaan wi nga xamante ne ni indi na ko waaye nag bu ñu indee thème bi daf ci am benn mot clé muy humanité ku wax humanité nag wax nit doomu aadama taxawaay bi mu ci am sens ak li nga xamante ne mooy essence pour ñoom ëllëg gu ñoŋ lan la ñu mën a jàngat ci tey jii nii ngir ëllëg nekk lu xamante ne nii mucc mucc ayib lay nekk professeur Fatou Sow yow tamit euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo bu baax dalal la ci plateau les grandes les grandes conférences. nga nekk tam koo xam ne comme ni ko docteur Cheikh gay waxee kenn dootu la présenté ci Sénégal ndax nit yi ràññee nañ la ci sa taxawaay bu am solo bi nga xamante yaa ngi ko def ci Sénégal waaye tamit jàmbaar bi nga doon ak soxna si nga doon loolu lépp nekk loo xamante ne nii mbégte réew mi la waaye tey jii bu dee mën nañu wax tey taxawaay bi nga xamante ne nii askan wala société bi de façon général lan ñu war a taxawee ngir kat lii nii fi nekk tey mu doon njàngat ci ñun ñëpp ba nga xamante ne kat ëllëg suñu dund dina doon lu am solo professeur lan nga ci mën a indi leeral ci askan wi. ok jërëjëf may nuyu téléspectateurs yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan euh, di nuyu yéen ñëpp ñu ma bokkal fii plateau bi di nuyu borom kër yi tamit maa ngi nuyu Mamadou ak euh, Alassane Samba euh, di delloo njukkal tamit sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma mi nga xam ni si conférence yi ñu daan def ci préparatoire u symposium Laylatul Xadr bi daanaka thème boobu ren moo doon thème bi ñu abordé woon euh, thème bi nag dafa di thème boo xam dafa xóot trop ndax buñ nee Covid tey àddina bi naka lañ war a xalaate suñu nekkinu àddina tey euh, nga xam ni dañuy delluwaat sil tax suñu borom tegoon ci suuf euh, wax nañ ko léegi yàlla dafa seet lépp li mu bind ci suuf mbindee ak na fi yëpp mu jël doomu aadama teg ko ci kaw teg boo mukk teg ci kaw sans responsabilité la ko dénk daf ko dénk àddina bi dénk àddina bi daf ko war dénk ci xam-xam njàngat àddina bi mais fexe aussi ba àddina bi ñu téye ko ci loxo yoo xam ne loxo yu mucc ayib la léegi Covid bi dafa mel ne fu ñu war wan ni. Mm-hmm. lañu suñu borom dénkoon wàccewuñu ak moom. Mm-hmm. parce que ñi ngi wax catastrophe crise en réalité caxat caxatee bi ñu caxatee àddina bi. loolu moo jur Covid bi euh, dafa am yu ñu suñu lu ñu ñu may ak yu ñu tere. li ñu tere. maanaam dañoo dafa mel laal lu ñu moomul. wala dañoo laal lu ñu tere parce que euh, Covid moo xeetu Covid yëpp moo dañuy jëfandikoo ay rabu àll yoo xam ni waruñu waruñu ko jëfandikoo waruñu ko lekk. Mhm. parce que yenn feebar yu bari ci loolu lay jóge te alxuraan dafa ñëw defal ñu ay sart lan lañ war lekk ak lañ warul lan lañ warul lekk. Mhm. léegi Covid bi daf ñuy wan ni ñun li nga xamoon doomu aadama yàlla cër boobu la ko joxoon mu def ko matewu ko kon dafa dafa am lu dafa wor euh, wor boobu mu wor tag moo ko indil tey jafe-jafe yi mu am fi ñu toll donc nga ma laaj ma ni ma enterme terme euh, d'humanité parce que àddina bi dañ fi war a dund ba bañu fiy jóge euh, delluwaat ci li taxoon ñu nekk fii moo di ay doomu aadama lañu ndax ay doomu aadama lim ñu euh, lim ñu wet yi ak euh, bàyyi euh, bàyyi ma du rekk si affaire ñu ngi lekk lu ñu warul lekk ba ñu am li ñuy wax zoonose muy maladie yi am mais dañu nekkul aussi ci li nga xam ne li nga tuddee humanisme nga xam ni yërmande bi war dox si suñu suñu diggante worma bi war jox si suñu diggante ñu delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ay jaamu suñu borom lañu. Mhm. parce que suñu borom bi mu fi ñëwee daf fi indi daf ñu wan parce que bu njëkk ba ay xeetu diine yu bari ñoo fi amoon diine yoo ku nekk yaakaar ni yaa sut sa morom mais bi diine yi nga xam ni dafa téere yàlla bi bu mu fi ñëwee mu ñëw ci tawraat wala mu ñëw ci injil wala mu ñëw ci alxuraan daf ñu wan nañu ñun ñëpp si yàlla lañ jóge kon ñun ñëpp ñoo yem. Mhm. si fa yàlla kon loolu légalité légalité ontologique ni ñu koy waxee loolu la tekki woon léegi nag tamit. bu boobaa foofu la ñu libéré parce que bu njëkk ba libre ñu woon dañ fi nekkoon di jaamu ay xërëm di jaamu lu nekk di jaamu jant bi di jaamu weer bi bi mu jumee wan ñu lool nag pour man foofu la ñu libéré mais ñun dañu delluwaat tënkaat suñu bopp buumu jaam parce que dañu dellu di jaamu alal di jaamu daraja di loolu moo indi système capitaliste bi ñu am tey. Mhm. nga xam ni exploité addina bi euh, sans nga respecté ay normes nga am fi nga war a yem. loolu moo indi jaxat-jaxat yi am parce que catastrophe yi bare na fi léegi li ñuy wax tout li ñuy wax tout de changement climatique. Mhm. ba tey mu indi fi problème bi ñu nar a am aussi si Ndakaaru bu ñu fi doon wax affaire littoral bi. changement catastrophe naturelle changement climatique yooyu yëpp moo indi catastrophe yi. muy yee itam fitna euh, yi muy waxee li muy tudd ay virus ay mbindaa fen yoo xam ni ñun teguñu si bët mais ñu ngi nekk ci xeer yi ñu ngi nekk ci baa bàyyi mais ñu ngi nekk ci leneen ba ñu demee ba déranger la nga xam ne waruñu ko woon laal loolu moo ñu indi fii tey mhm. euh, en même temps tey bu ñu ko xoolee ci Sénégal xool ko ci àddina bi yëpp moom delloowaat nañu si li ñuy wax suñu statut simplement d'être humain minuscule nga xam ne duñu dara euh, mais si plan bu ñu dellee si kaw ñëw ci Sénégal nag jàngat yi daf ci daf ci bare parce que tey euh, remettre na en cause modèle de fonctionnement bi ñu amoon tey euh, muy ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu jàkkonteel indi na dëgg la système de solidarité bi ñu jëkkee ñëw ñëpp jog nañu ku nekk loo mënoon nga dugg sa. Mhm. mais très vite dañ ci dellu gannaaw. parce que dañu delluwaat gannaaw parce que dañu dem ba mu indi ubbil nit ñi seen bët parce que Covid bi dafa ubbi nit ñi seen bët seen diggante ak ñi leen yor seen diggante ak seen ay njiit. Euh, problème am fi ba léegi lu nekk ñu wax ko sénégalais yi ni leen dañu di indiscipliné may wax toujours jaaxal na ma sénégalais boobu ñun wax dafa indiscipliné d'un côté boo demee feneen fekk mu discipliné mhm. nangul nguuram dafa nangul sëriñam. kon loolu dafa war a xool ñu jàngat si relation yu ku nekk lan nga war am ak sa sa morom parce que tëb rek nga leen dangay ngay indiscipliné lu tax problème boobu réglé wu. mais bu ñu deful attention ni ñu indee concept distanciation sociale muy baat tubaab boo xam dafa am lu mu wund. parce que ñooñu ko indi société individuelle lañu ñoom su leen neexee wax loolu mais ñun baat boobu ñu jël ko rek euh, plaqué ko ci suñu société mënul nekk parce que euh, nit ki. ñun sax si suñu baat dañ naan sorianto euh, xol day waaye xol day gise donc la question de relation sociale du rek nit ki nekk na fale wala sor na mais si kër tubaab bi ba ñu fa nekkee ñoom si si société tubaab distanciation sociale li mu ëmb dafa bëri trop parce que ñoom dañu am système boo xam ne ku nekk soxlawuloo am mbooloo ak ñu la wër parce que état bi moo koy jël en charge rek leen la ko mm-hmm. mais ñun ñu nekk ci société yoo xam ne état bi mënu la rek leel sa lépp sa sa dëkkandoo moo ko mën def sa mbokk moo ko mën def sa keneen moo ko mën def léegi nag bi ñu ñëwee jàngat bi ñu def ñun si ñu ñu defee Covid bi même baat yi ngay utiliser concept yi ce pas neutre war nga mën a xool yow sa société naka lañ ko tëggee ak naka lañ ko tëddee nga dem a génne benn concept wat baat boo xam ne boo ko tuddee ku nekk di nga si gis sa sa borom. Mm-hmm. mais ñun dañu jël appliqué de manière mécanique li nga xam ne si yeneen sociétés yi la jógoon. or Covid bi du question rek une de maladie c'est pas seulement technique. mais c'est une question sociologique aussi donc jàngat boobu moo desoon ci ñun naka la suñu njiiti jëlee euh, ñu jël ko def ko rek une question de médicale mm-hmm. ni affaire or on se rend compte que même médecine occidentale bi dafa am ay limites ci faj mbir moomu léegi indil nañu nag ubbi suñu bët moo di mais société bu nekk dañ koy wax garab ga lay faj ma nga fa nga dëkk mm-hmm. donc ñu war a toogaat gëstuwaat ñun ndaxte ba fi tubaab nekkul kenn nekk fu feebar da daan am mbas dafa daan am te dañ ci daan génn kon naka la ñu war a jëlewaat delluwaat ñun xam-xam bi nga xam ne am nañ ko mais daf ñu won ni ñun xëy na ni ñu doxee boobu ba léegi il faut ñu delluwaat gannaaw jéem seet naka la ñu tëggaat suñu doxalin parce que munuñu rek wekku si àll bi si si bitim réew moo di bu ñu waree am masque foofu la war a jóge tey xam nañu ñun masque mun nañ ko defaraat suñu bopp bu ñu waree am garab ñoom ñoo ñu koy jox te pourtant ñun am nañ fi ay garab ñoo ñu nga xam ne war nañ mën def garab yi est-ce que seet nañ leen est-ce que laaj nañ leen ba xam loolu naka lañ ko mën a lakka lañ ko mën a régler kon jàngat yi ci bare tey ñaari yoon moo ci mën am ñu jóge fi defaru defaru boo xam ni dañ koy lal ci li ñu doon ñun lal ko ci li ñu am ak ci suñu mën-mën ak fu ñu mën a yem lal ko si ñi dañu war a am suñu ay xam boroom xam-xamu bopp parce que réew moo xam ne kat yow mënoo defar benn garab bu may caricature ni réew moo xam ne mënoo sax def puso waaye am na lu ñu yomb tey lu fi am mooy ñu ñuy wax les sciences sociale bari na ci. Mhm. naka lañ tëggee societé bi naka lañ nga mën a wax ba mën a jotoog jokkoog sa askan ba mën leen réorganiser ba ñu mën dem foofu mais boo xoolee ñoom ni ñu ko tëralee defuñu ko foofu dañ ko am approche purement médical dafa ni garab la rek affaire faj la or médecin bi faj moom mën na ko torop mais boo weesoo faj rek mu mu ndax Covid bi léegi du question wu fab du question wu feebar bi du question wu faj kese. dafa ëmb naka la nit ñi war a jonkowaatoo naka la ñu war a réorganiser waat seen ay société te loolu beneen moddu xam-xam la laat te li ñu seetlu mooy loolu mm, cër luñ ko torop ci ci réew professeur boo xoolee nga baal maa lay dagg boo xoolee trois mois ci Sénégal dinañ am mbas euh, nekkuñu si jiitu daanaka demoon na Chine ñu ngi koy seetaan ci télé bi yaakaar lu sore la ñu ngi koy seetaan ci euh, fi nga xamante ne mooy euh, États-Unis di ko seetaan fi nga xamante ne mooy Italie chaque fois ci biir yaa ngi naan ñoom ñoom. da nga da nga jàpp ni maanaam Sénégal en tant que tel ñu jël ko wàccee ka que ni ñu ko gérer dafa des wala boog ñi nga xamante ñooy saytu nekk kilifa yi ci kaw ñoom ñu nu jàppee maanaam Covid bi ak penc mi est-ce que dégg nañ leen parce que boo xoolee ba léegi. Ah. masque bi ñu ngi ñi ngi tay rek ñu ngi ramasse ay nit ñu takk seen ay masque gis nañ ne am na ñoo xamante ni sànq professeur Sam ngay wax koo xamante ni liggéeyam bi mu gën a fonk muy dawal oto ñu téye ko 3 mois ni ko doo dawal ba ñi foog ñu amatuñu choix. est-ce que jàpp nga ni maanaam population bi wala société yi ñoom dégg nañu seen kilifa yi wax ñoom wala boog est-ce que kilifa yi am na nañu disque bu baax pour seen penc dégg leen. waaw problème bi mooy li ma wax mooy rupture bi modèle de gouvernance bi dafa di une gouvernance administrative boo xam ni modèle colonial bi la continuer di utiliser ba tey mooy dañuy jël yaakaar ni ñee ñoo xam rek ñoom ñooy wax nit ñi ñi appliquer leen or société bi tollatul foofu mbes mi wane na ko parce que bi ñu demee ba mënatuñu dañu gis nañ fi li ñu mësul gis. dañu génn génn goo xam ne xale yi génn génn boo xam ne guddi lañ génn génn goo xam ne sax si biir si biir intérieur du Sénégal la commencé mm-hmm. parce que dakaar moo daan indi ay trouble ñeneen ñi ñëw tey pour la première fois en tout cas ou rarement ñu gis mu jege de l'intérieur du pays daal di ñëw euh, jàpp si capital bi mm-hmm. te jeexagul parce que wax nañ leen parce que loolu pourtant teel nañ leen artu mm-hmm. bi ñu defee Cap Skirring lañ leen problème bi jeexagul de te ba tey jeexagul encore parce que li indi euh, c'est pas nit ñi gëmu nañ ñi mbas mi am na parce que gis nañu nit ñaa ngi dee mais dafa ni liñ naan bala nga naan naam ne fa parce que bu deewin boo xam ne ñaari façon la parce que bu fekkee da nga nar dee ak xiif ak nga dee ci mbas mi te mbas mi tamit am na leneen lu mu ci am ku nekk danga am sa ngëm-ngëmu diine ngëm-ngëmu yàlla am na ñenn yaakaar nañ ni suñ fekkee ni liir nañu benn euh, saaru alxuraan ñoom gëm nañu loolu daf leen di aar ñenn ñi yaakaar ne bi ñu takkee seen ay bant ak seen ay leneen daf leen di aar cest à ku nekk dafa dellu aussi sa ngëm ngëm-ngëm boobu am na nga am nga ci euh, benn confiance maintenant naka la autorité bi war a waxanteeg ñoom ba ñoom ñu xam lii réalité la euh, war nañ parce que man gëwuma ne nit ñi gëmuñu ko parce que nit ñi gis nañ ñuy dee nit gis nañ ñu nekk ci seen ay mbokk ñu jàppale ñu nekk ci biir hôpitaux parce que temps yi mi gën di bari kon du ñàkk du ñàkk ngëm pour man c'est pour ñoom amuñu pexe parce que dañu nekk ñaar dilem naka la ñuy def ba dund te boobu indil nañ leen réponse mm-hmm. parce que société tubaab bi dañ leen jox réponse ci loolu dañ leen lël ba pare di leen jox lu ñuy dunde mais fii ñun suñu système social permettre melul noonu mën nañ ko de naam mais niñ koy mëne du ci état bi la mën a jóge parce que ci solidarité collective bi lañ ko mën a defee mais ñu xëy suba di leen da ngeen def distance sociale kenn du gis sa morom mayu ñu leen temps wu ñu réorganiser wu ba xool ñaka naka la nii mën a jàppale seen morom li nit ñi defoon mooy bu njëkk ba ku nekk li nga amoon jox nga ko état bi yaakaar ne état bi moom bu boobaa dana mën a jàppale askan bi mi ñetti weer a ngi ni mbas mi dem nañ ba nit ñi di génn génnaat te ñi ñu waxoon dañ leen di jàppale ci ci dund ba tey gisuguñu dund bi kon dañu waroo ak xoolaat du point de vie sociologique naka lañ mun euh, euh, dañu dul jox population waruñu xeeb xalaatam parce que normalement parfois moom mën a la génneel solution yoo xam ni yow sa bopp gisuloo ko woon moom mi koy dund war na mën a génne solution bi dafa naa foofu lañu amee. Euh, raté bi léegi professeur dama bëggoon rek parce que wax nañ ko ci thème bi sens naam ku ne mën na ko dégg mais essence bi nga xam ne moom la ñuy xaar tey pour am beneen dundin bu wuteeg bii askan wi nan lañ ci war mën a taxawee. bon askan bi parce que léegi ku nekk dellu na. surtout ak cosaan yi ak ku nekk sa gëm-gëm yooyu. waaw ku nekk euh, dama ne euh, ni naan xel bu doon jaay lamb doomu aadama bu nekk am nga xel mais yow yaay xool sa situation ak ni nga ko jànkonteel nga xool fa nga ca mën a yem. mais li tax nag ñuy indi société c'est que société dafa war a boole nit ñi ñu ñu àndandoo ñoom ñu li tax ñuy wut njiit moo di dañuy am euh, yoon boo xam ni ñëpp ci ànd ak moom problème bi ñu am tey Sénégal mooy risque bi mooy mu am rupture entre ñi nga xam ne ñooñu leen dénk ni leen yéen a leen yéen a ñuy yor ñu topp si li ngeen wax seen gannaaw euh, bu fekkee ñoom lay ko lañ nañuy doxalee dafa waroog ak li nit ñi doon xaar ci ñoom dafay indi problème te or dafa mel ne loolu moo am tey te li ko indi moo di si biir mbas mi fi nit ñi yaakaaroon ne tey ñëpp ngi naat jëm euh, seen xel dem ci àllaaxira parce que kenn xamul ndax di nga ci génn wala doo ci génn yaakaar nañ foofu nit ñi wax ay réewu jullit lañu foofu lañu war gën a nekk ay jullit. Mhm. gën a dimbalante ci suñu bopp. gën a ragal yàlla gën a màndu. mais ñu gis ni nit ñi boole seen alal jox autorité yi di leen jàppale leen si néew doole. ni ko relayé dëgg la wala du dëgg mais niñ ko relayé ak nit ñi ni ñu yaakaare mooy alal jooju ñu waroon dugal ci biir askan bi dafa am ñoo xam dañu dem ñoomee bëgg ci ñoom di ci di ko di ko di ko jëfandikoo mooy maanaam ñi joxoon force Covid bi ñu naan dañ ci war am ay ay ay xaw ma ay honoraire la xaw ma waaw si biir si biir tamit ñu gis ñi nga xam ne ñoo féete woon kaw di gën a am avantage ci société bi ña nga leen di yokkal seen ay avantage donc affaire yu signaux yu mel noonu moo indi amoon na avis une rupture de confiance parce que problème bi tey baat bi mooy rupture de confiance or war nañ gaaw faj loolu parce que individuellement mënuñu ci génn foog ñu delluwaat ci société bi organisé wu avec euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite ñu mën a tegal yoon yoo xam ne nit ñi ñu amaat confiance ci ñoom pour le moment ñaari modèle moo fi am modèle wu ñitu euh, diine yi nit ñaa ngi leen di déglu ak modèle yi ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite si biir àddina bi nit ñi yaakaar ne ñoom lan leen denkoon ak lañ leen def parce que kat kii problème yi fi am fan yëpp ay waxu suuf ay waxu lekk fii ay waxu leneen ak yooyu yëpp dafay tax xol yi dafay gën di di jóg ba pare ñu ñu gis localité yu bari tey par exemple ndox amul c'est-à-dire attente yi nga xam ni euh, moom lañ xaaroon si njiit yi dafa mel ne yàlla dafa xëyandoo suba rek euh, génne waale problème yëpp mu mu tar mhm. problème nag mun na am mais ça dépend ni nga koy waxee ak nit ñi ba delloo siwaat leen ñu dal parce que problème du ñàkk parce que y a des raisons multiples yoo xam ne mënuñu fajandoo yëpp mais dafa mel ne tey yooyu yëpp la nit ñi commencé di ko génne te li tax ñuy génn di di ñaxtu mooy je pense benn kii la woon moo di yaakaar bu tas dafa na woon ne mbas mi dana ñu delloosiwaat ñun ñëpp ñu xam ne ay ay doomu aadama lañu ñu ragal suñu borom euh, ku nekk ñu jox la li la la yellool mais ñu gis ni si biir mbas moomu def si am ay nit ñoo xam ne yaa yooyu ñoom ña nga cay profité wu pour def ni ñoom ña ngay defal ci defal ci seen bopp loolu mooy rupture de confiance si sama jàngat bi fi am boo xam ne war nañ ko gaaw a faj parce que bu dul loolu di jur lu baax. Euh, jërëjëf euh, professeur Fatou Sow Sarr euh, mbokk yi ni ñu leen ko junjee sànq dañuy dem ba ca fële ca Bruxelles ca Belgique fekk itam keneen koo xam ne. Euh, dégg ngeen sànq ni ko docteur Cheikh Gueye présenté ku xam-xam màcc la jëm ci lu bëri rawatina ci wàllub dine di professeur di docteur di professeur Mouhamadou Galaye Ndiaye professeur ñu ngi lay nuyu bu baax di la dara jàmm euh, déglu nga li nga xam ne moom mooy thème bi alors bu fekkoon mën nga indi sa jàngat ci li nga xam ne moom mooy thème bi ñuy fas yéene waxtaanee tey. ak lan moo ci war a doon tey jii nii taxawaay yi ci kilifa diine yi taxawaay ci askan wi ngir saafara nag mën a am ci sunu dund ba nga xam ne ku nekk si ñun dina ci mën a gis boppam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte lool euh, Covid bi moo indi situation bi nii waaye lépp euh, ñu gis ni xarañu doomu aadama Euh, permettre nañu tey ñu mën a sori waaye mën a tamit mën ci waxtaan bu mel ni kon euh, ñu koy rafetlu bu baax di am mbégte lool di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxo docteur Cheikh Gueye waaw mu tegal ñu ko ci loxo sëriñ Abdoulahat Mbacke Gaynde Fatma bu ko defee mu tasaare ko ci incha allah ci kilifa yi diine yi nekk ci biir réew mi yëpp di nuyu euh, sama xarit sama wëlëre di sëriñ Sam Boussa di sama inspecteur Euh, di koo xamee ni ku am solo la ci lislaam ji ci yoonu murit waaye tamit ci kuréel googu comme niñ ko waxee sànq ci rawdu rayaxiin di nuyu soxna si soxna Fat euh, Fat Sarr euh, di ko nuyu bu baax a baax a baax di rafetlu aussi duggam duggam am na solo lool surtout ci ni ma ko indee ci wàllu sociologie je pense que ni tey jii soxla nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax man nag xam naa fi may duggee rek mooy Euh, ni ñu posé thématique bi muy euh, euh, l'humanité bi nga xamee ni moom la ñu jël point d'interrogation teg ko ci kawam foofu xam naa lay duggee ndax sunu mbokk mi nga xamee ni moom moo moo jiite waxtaan wi dama xamul turam mu wax sànq ba tudd aaye boobu nga xam ni moom la ubbee waxtaan wi defe naa ne aaye boobu dafay tënk dafay leeral tamit Euh, lépp loo xamee ni rek tey jii ñu ngi koy dund ci àdduna bi euh, jiitu na ci euh, lii nga xamee ni mooy covid 19 bi xam nga sunu borom subhaanahu wa taala bu waxee ni bi mu bëggee jël aadama alayhi salaam inni jaacilun fi l ardi xalifatan qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bu am solo boo xamee ni sunu borom tànn doomu aadama ni da koy teg ci kaw suuf mais lii fi am solo mooy ñaari mbir yoo xamee ni danañ ci mën a jàngat tey jii lii nga xamee ni moo xew ci àdduna bi ba tey jii euh, point d'interrogation boobu ñu teg ko ci kaw pas en doomu aadama waaye ñu teg ko ci l'humanisme maanaam ak nité ak nité ci kaw suuf donc euh, ma jàpp ni ay boobu dafa am ñaari mbir yu am solo yoo xamee ni wax na ko benn bi ci njëkk mooy li mu wax ni li malaaka yi wax sunu boroom ni ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima est ce que da ngay tànn koo xamee ne boo ko indee ci kaw suuf lii doon métier mooy di tour deret ak di koron pour suuf si maanaam di def lu bon ci kaw suuf donc yàlla subhanahu wa am nu mu waxeek euh, malaaka yi ni leen inni alamu ma la taalamuun xam naa lu ngeen xamul parce que li tax yàlla wax leen loolu mooy yàlla xam na ni doomu aadama capacité yi mu am pour mën a def lu baax noonu la amee ay capacité pour mën a def lu bon capacité yi mu am pour mën a def lu bon noonu la amee ay capacité pour mën a def lu baax donc yàlla nag bëgg euh, indi benn euh, programme boo xamee daf ko teg tegu ko pour ñi nga xamee ni ñu moy tegu ko pour ñi nga xamee ni yàlla daf leen bind ci jaamu yàlla ndax ñoom malaaka yi sax wax nañ ko ñoom dañu ni euh, wa nahnu wa nahnu ñun nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alors que nous te glorifions et t'exaltons c'est-à-dire que ñoom loolooy seen liggéey ñoom duñu mooy yàlla léegi yàlla ki mu bëgg indi ci kaw suuf nag mooy ko xam ne da koy mooy koo xamee ne bu ko yàlla ne defal mu ne ko bu ko neexee mu ne defuma kooku la yàlla soxla kooku la yàlla indi ci kaw suuf kooku mooy ñun tey jii doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoo soqi koo ci aadama on a la capacité de dire à Dieu non am nañu capacité tamit bu wax yàlla oui yàlla indi programme am yónni ay yeneen toom wàcce ay téere pour teg ñu ci yoon wuy yoonu maanaam ñu ànd ci yàlla li bëgg mais doomu aadama bi yàlla dafa waxaat ci beneen beneen saar muy la sourate 17 suratul isra le voyage nocturne euh, verset numéro su ma juumul verset numéro 16 sunu borom subhanahu wa di wax foofu nii wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira donc yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax ni yàlla su bëggee détruire benn dëkk wala planète bi ak lu ti doon li muy def mooy day xool day xool ña nekk ay kàccoor ca biir dëkk ba wala ca àdduna booba mu fexe ba ñooña yore mbir ya mbir ya nekk seen loxo bu ko defee ñooña danañ yàq àdduna bi bu ko defee yàlla jaar fa punir leen kon yàqu-yàqu foo ko gis rek xamal ni eh, ñu ñu bon les pervers ñoom ñooy jiite bu ñu jiitee parce que même ci aaya bi ku ñuy wax Abu Usman bu nga demee ci tafsir da nga ko ci fekk dañu wax da dafa interpréter aaya bi beneen ci beneen anam mu ni am mar naa mutrafiha am mar naa damaana daf ci def shidda am mar c'est-à-dire yàlla day def ñay jiite ñooña ña di jiite nekk ay pervers bu ko defee ñooña nag ñooy ñooy def seen perversion maanaam yàq suuf si yàlla jaar fa indi leen punition ma jàpp tey jii li xew ci Covid 19 bi sama njàngatu bopp modestement mooy looloo ko indi tey c'est-à-dire que ni dem nañ ba nga xamee ni àdduna bi ñi ko jiite ñu jox ko teg ko ci seeni loxo ñoo xamee dafa am lu ñu manqué mooy éthique ak morale te loolu euh, boroom xam-xam yi. prix Nobel yi euh, nitu diine yi ñépp yàgg nañ ko junj di ko wax di alerter di alerter di alerter ba tey ji lu jiitu ba Livingstone rek di wax ni je crains cette civilisation qui tue maanaam ragal naa civilisation bi nga xamee ni day reyee euh, euh, la crise du monde moderne comme ni ko nu tuddati boroom xam-xam diine bu mag boobu waxoon kii nga xamee ni Euh, mooy euh, Joseph Stiglitz moom tamit wax ni quand le capitalisme perd la tête ñu gis ni aussi euh, su ma ko toppee liste bi yaatu na boroom xam-xam yi wax lu mel noonu dañoo baree bare bari alerté àdduna bi léegi nag mu des nag ana nanan lañu mën a fexe ba delloowaat doomu aadama ak nitéem yàlla bàyyiwuñu ba léegi yàlla daf ñu indi solution parce que bi mu yàlla wonee ñaari mbir yi ba doon wax benn bi mooy Euh, tuur deret ak yaq suuf beneen bi ci des mooy yàlla daf ñoo jox outil outil boo xam ne mënees na cee defare suuf muy xam-xam wa allama aadama al asmaa kullaha ma aradahum ala al malaika donc yàlla dafa jox aadama il a il a il a en fait il a inoculé le savoir euh, chez l'être donc da yàlla dafa jël xam-xam def ko ci biir doomu aadama xam-xam boobu nag ci lay diriger àdduna bi soit mu utilise ko en bon escient mu di ci anam bu baax soit mu utiliser ko ci anam bu bon moo tax euh, yàlla subhaanahu wa taala indiwaat beneen aaya ci suratul xaj waxaat fa wax ju am solo mooy nan la ñuy mën a fexee ba delloo siwaat delloo siwaat le sens de l'humanisme donc ci adduna bi mooy walawla dafcu llahi nnaasa baadahum bi baad la hudimat sawaamicu wa biyun wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismu llahi kasira wala yansuranna allahu man yansuru inna allaha la qawiyun aziz donc ay boobu li muy wax mooy bu ñu bàyyee ñenn ñi surtout bu fekkee ni ñooña amuñu sensu éthique amuñu sensu moral ñu jiite adduna bi nee na lay xew mooy li am tey jii ci adduna bi jullit ñi ñi am foi ñi am foi ñi am gëm-gëm ñi xamee ni euh, bëgg nañ dëgëral seen lien ak yàlla ñooñu tamit dañuy dugg ci biir problème bi parce que dañoo seetaan parce que euh, jóguñu maanaam téye loxo ñi nga xamee ne ñoo yàq moo tax yàlla ni bu fekkee am na ñu yàq dafa war a am ñoo xamee ni dañuy defar bu fekkee ñi yàq am nañu volonté bu toll ne jóg di yàq kon ñiy defar wala ñi war a téye ci loxo ñi ñiy yàq war nañu am fulla ak matuwaay bu toll ci téye seen loxo ni leen bu leen yàq walawla dafau llahi nnaasa baadahum bi baad la hudimat nee na loolu bu ñu ko deful bu ñu toogee di seetaan comme ni àdduna bi xam ngeen ñun ñëpp ci whatsapp yi réseaux sociaux yi ana ñaata peuple la ñu gis ñu leen di éradiquer ñaata peuple la ñu gis ñu leen di rey ñaata peuple la ñu gis ñu leen di maanaam manque respect di leen toroxal ñu la koy yónnee ci sa GSM nga téye sa GSM xool gis ndeysaan xëy na mu metti la waaye lan ngay def transféré rek ca nga yem bu la neexee sax yenn saa yi doo transféré donc mooy wane dañoo dem ba nga xamee ni euh, lay yàqu feneen doomu adama yi ñuy toroxal feneen ci àdduna bi crise bi am ci àdduna bi yàqu-yàqu yi dañoo dem ba nga xamee ni yëg-yëg biñ ci war a am amatuñ ko taxawaay yi ñu ci war a taxaw taxawatuñ ko kon bu boobaa yàlla nee na da ngeen dem ba seen jàkke yi danañ ko tëj danañ dem ba seen jàkke yi danañ ko mab danañ danañ dem ba nga xamee seen lien avec le divin seen lien ak yàlla maanaam lien boobu ci boppam di ngeen ko bëgg te du ngeen ko am lahu dimat sawaamiu wa biyaun wa salawatun wa masajidu yuskaru fiha fiha smullahi kasira di ngeen dem ba nga xamee ni fi ngeen doon nekk pour mën a dëgëral lien dem aji màkka dem defi umra dem ci jàkke yi nga xamee ni mooy néegu yàlla yi mbooloo mi daje nga xam ni mooy jur solidarité dans la foi loolu yëpp danañ leen ko xañ parce que da ngeen a toog seetaan que da ngeen a toog je pense que ni pour ñu mën a delloo waat le sens de l'humanité du ci ay du ci ay discours du du rek ay ay ay ay alerte yu ñuy def waaye dafa laaj ñu jóg dafa laaj ñu jóg loolu nag xam naa am naa ci aussi plan boo xamee ni maa ngi koy bind actuellement ci nan lañu mën a taxawee ba incha allahu mën a contrecarrer maanaam système bi nga xamee ni mooy système mondialisation bi nga xamee ni capitalisme libéral effréné moom moo ko moo ko moo moo moo koy moo moo yor ngalaab bi maanaam di ko nos bi maanaam di ko jëmale fu ko neex léegi nag jërëjëf euh, di leen bu baax a baax euh, professeur Mouhamadou Galaye Ndiaye vraiment xam bi am na solo waxtaan wi tamit am na solo du ñàkk euh, jeneen jotaay bu soobee yàlla dina ci dikkaat ak moom gën ko yaatal ndax nag waxtaan wi am na solo docteur Cheikh Gueye dégg nga li nga xam ne sumu gan yi wax nañu ko tàmbalee ko ci Serigne bu Bousso ba ci Mouhamadou Gallay ak Soxna Farso Sarr saa ku nekk ci ñoom ci fànn nga féetee fexe nga indi thème bi waaye tam waxtaan ci li nga xam ne ku ci nekk war na ci mën a jëriñ njëriñ rawatina askan wi nga xamante ne kat tey jii ñoom ñoo nekk au de la scène. waaw lu mel nii fekk na ñu ngi nekkoon ci biir mbas mi ca koor ga ba ba fi ñu yegg si nii day euh, jàngat bi ñu ci man am mooy euh, kon basculement bu mag Euh, am na mbas mi basculement la yàlla bi mu ñu fi indi basculement la mais mbas mi beneen basculement la basculement aussi boo xamee ni dafa war a jur yeneen basculement maanaam yeneen jéego ci askan wi ku ci ne sa bopp waaye aussi euh, askan yi askan yi réew yi euh, mbootaay yi ku nekk war a xoolaat sa bopp yaakaar naa li nga xam ne ni moom lañu fi gën a gën a génne Euh, mooy dellu bi nga xamee ni moom lañu war a dellu suñu borom mm-hmm. wuyu euh, yi nga xamee ni nii euh, moom lañu suñu borom doon wax fa bi ay alaay rabbikumaa tukazzibaan war nañ ko mën a laaj moom moom la ah, xanaa gisu leen xéewal yi ma leen defal yëpp ñu ne damay fàttaliku toujours yaa macharal jinni wal ins in istataxtum an tanfuzu min axtaari samawaati wal ard ah, mi ñu doon wax de fu ma fu ma neexul nag du ngeen fa dem muy euh, génn suuf si wala génn asamaan pour man war nañoo mën a xóotal jàngat bi bu baax a baax a baax jaarale ko ci alxuraan comme ni ko sëñ Sam defee comme ni ko solution la ci alxuraan daf ñoo daf ñoo yëgal lii ah. as mhm. daf ñoo yëgal lii defee ñu ci lii ba pare wax ñu fi ñu war a jaar d'accord kon euh, jàngat boobu mënees na ko ci am mhm. mais soo xoolee euh, mu jàngatu Fat Sarr muy même jàngatu professeur Galaye dafa ñëw dafa ñëw ba yegg ci koom-koom tudd nañ lu bëri capitalisme ak yàq yi nga xamee ni moom lay yàq àdduna mhm. damay wax benn ci benn conférence Tivaouane il y a quelques ne un autre monde est possible mais avec Dieu soo seetloo ni nga xam ni noonu lañ tëggi àdduna bi depuis at yi yëpp dañ koo tëgg daal di ciy génn yàlla ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy dunde mhm. ni ñuy lekke ni ñuy naane li nga xamee ni nii noonu la ñuy dëkkee lépp dañ ci génne yàlla. Mm-hmm. yaakaar naa kon lii nga xamee ni nii mooy mbas bi. dafa doon euh, fàttali buñ yàlla di fàttali boppam. Mm-hmm. ba pare mu jox ñu opportunité pour ñu xoolaat suñu bopp pour ñu joyanti. Oh. pour ñu dellu ci. yoon wi xoolaat suñu taxawaay. Euh, euh, bàyyi ñal li yi nga xamee ne jaaroon nañ ko pour man loolu la réellement mbas mi fii kon euh, mu mu mu loo ñu ci lan moo tax ñu ñëw ci kaw suuf sëñ Saam yegg si dellu si na ci bu baax. la waral sunu dëkk si àdduna. ci dëkk ci àdduna. waaw mu ne moment la pour ñu xoolaat ko ñu xalaataat ko. Mhm. ñu ñu mu mu wax ñu ci ay ay baat yu am solo. ñu ñu war ci aussi jàngat suñu diggante. ñu en tant que société. maanaam société moo ñu laaj faatu sànq ci biir waxtaan wi. Mhm. est-ce que ñun société bi ñu doon may nañu ñu résister bu baax ci mbas mi wala daf ñu cee gën a sonal loolu lu ñu war a xóotal la su ko defee dinañ xam ñun société bi ñu doon ndax société bu mën a ja euh, euh, relever défi défi wu diine mais aussi défi wu développement mm-hmm. défi wu euh, booloo défi wu solidarité lan la ci mbas mi wone loolu lu ñu war a jàngat la en waxtaan wi amoon na solo mm-hmm. ñu ñuy jàpp ne buntu la bu ñu ubbi mm-hmm. euh, euh, xam naa ni ba ca topp dinañu indi yeneen borom xam-xam yoo xamee ni ñoom ñooy ñuy may mm-hmm. ñu gën a xóotal euh, jëmale ko aussi pas seulement ci diine mais jëmale ko aussi ci yeneen thèmes yi nga xamee ni ñoom ubbi nañ ko mm-hmm. bunt yi ñu ubbi buntu économie la buntu culture suñu culture buntu social ñun naka la ñuy dunde bunt suñu diggante su ak suñuy moroomu jullit mhm. suñu digganteeg suñu borom yooyu bunt yëpp waxtaan wi ubbi na ko mhm. ñuy ñaan yàlla mu may ñu ñu yegsiwaat fi am yeneen euh, yeneen poñ yuñ ci ubbi Euh, euh, bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi santaat ñëpp ngërëm ñëpp. jërëjëf euh, docteur Cheikh Gueye imam une minute rek bu fekkee mën nga ñu defal tamit benn synthèse bu gàtt parce que ku ci nekk muy Serigne Sam Bousso war na war war nañu dikkal ci en une minute rek ban taxawaay la ci kilifa diine yi am. ngir tamit li ñu bëgg ni tey mu mën a am solo professeur yow tamit dañu dikkaat rek en une minute rek en résumé ci stigmatisation bi li ñuy gis tey ci Sénégal ak tamit question bi nga xam ne docteur euh, Cheikh Gueye wax na ko ndax léegi kat défilé bu nu mën a relever am déet en en une minute trente rek incha allah waaye oustaz ma jox la ba pare nga résumé en une minute laataa ñuy dem ci ñaari laaj yi. waaw man li may tënk rek mooy euh, bu nu seetloo kenn ko nekk euh, dafa nekk di di wane ni hmm, parce que bu nekkee ay yu ñuy posé wu on se boo ko de questions d'humanité ñu ngi wax ni dafa sëñ saam mu ngi koy wax que ni dafa daif malgré yàlla subhanahu wa taala jox na ko euh, tàggatal na ko àdduna waaye teewul résultat final mooy li am professeur boo waxee dama wax euh, da ngay jéngi day dégg li philosophie doon wax la science nous a fait des dieux avant que nous ne méritons d'être des hommes boo déggee professeur Galaye moom mu ngi insister que yàlla subhanahu wa dafa joxoon Adama benn arme muy xam-xam Eh, ma sama question dama leen koy posé noonu rek est ce xam-xam boobu doomu aadama am léegi comment l'homme est pointu ci xam-xam et crise bi ñëw l'homme monte doomu aadama mel na xamul dara nga xamante ne ba léegi jusqu'à présent amuñu lu efficace lu koy faj te wàllama wa allama aadama al asmaa kullaha kullaha la ko donc le vaccin il est là c' est c' est sûr dans un mois dans un an dañ koy gis mais il est là léegi lan moo tax doomu aadama fàttu ba mën koo gis donc est ce que kon nekkul kon yàlla day wan doomu aadama du sa xam-xam boobu nga naw rek mooy tax nga baax mais man maay gérer àdduna bi li ma leen mën ko ce que professeur Sam def bonne lecture boobu. fii xëy na mu nekk daaneel bi ko doon oh. léegi <laughs> mooy damay ñëw rek ci benn aaya bi suñ ci ci suuratul mulk alladi xalaqa al mawta wal li yabluwakum ayukum axsanu amala xam nga suñu boroom daf ne dafa bind dund ak dee ngir mu nattu leen. teg leen ci ay épreuve mais épreuve lan lay xool di yeblu ayyukum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf kon saa bu situation bi amee li ñuy xool mooy jëf yan acte la ñuy posé def naa loolu mooy jàngat bi ñu ci jàngat mm, yëpp looku ayyukum ahsanu amala ca it ndax jëf yooyu kan mooy gën a rafet jëf ci yéen kon mooy réponse bi ñuy laaj ay jëf la mm-hmm. action waaw jëf yooyu it man li ci jiitu ca xam naa mooy doon naan laaja laaju euh, suñ baaba mooy maanaam aw tartibul awlawiyaat lan mooy suñuy priorité adduna bi dañoo am problème priorité kenn ku nekk ak lay sa priorité fi mu mais humanité amuñu ay priorité yoo xam ne humanité bi yëpp ñoo bokk ne lii mooy priorité fi mu ne nii loolu nag problème la ci adduna bi hmm. waaw loolu waaw foo foo ñu foo ñu xoolaat ko. xam naa ne yoon la bu mu <laughs> ubbi. xaajul jeex bu mu ubbi. <laughs> Euh, du ñàkk danañ am yeneen jotaay. bu bu si yàlla andee. ngir daal di ko gën a waxtaanee gën a tënk parce que tamit laaj jib na ci professeur. professeur mënuñu la bañ a jox kàddu gi. Mm. en une minute rek nga ñu un peu laaju docteur Cheikh ak euh, tamit stigmatisation bi ñu tey jii ci ñi nga xam ne am nañu Covid 19 bi. waaw bu dee affaire résistance face au défi. Mm-hmm. Euh, suñu histoire wan nañu ñun nañ défi yu bare. muy jaayum jaam fi jaaroon muy colonisation bi mhm. muy ay sécheresse yu bari doon fi jaar muy sax bu mujj bi 2008 2009 crise financière bi fi amoon mais mbas mi en réalité pour Sénégal àggagul foofu yeneen réewu toit bi agg na fa àgg boo xam bu jëgg dayo mais ñun suñu réew àggagul jéggagul dayo boobu mhm. seulement euh, risque pour plutôt plutôt man laa ci gis c'est-à-dire niñ koy gérer buñ ci génnee nit ñi ku nekk ndar dem bopp sa bopp risque boobu war nañ ko xoolaat. à la fois ñaari porte ñoo ouverte fa la ñu waroon gën am solidarité mais niñ koy gérer bu ottuwul dafay nar a dem. ku nekk ku nekk delluwaat ci sa euh, ci sa bopp. maintenant li ñuy wut waxtaan stigmatisation bi tamit niñ ko gérer la parce que am na feebar yu fi gën a garaaw yu fi yu fi am parce que mbas mi li mu fi jëlagum ci ay nit par rapport chaque jour li fiy dee ci yeneen feebar li fiy dee ci accident yi moo ëpp déggu foofu li am fii ci ci mbas mi. mais niñ ko wanee nit ñi tout de suite dañu jël ay décision sans pour autant ñu waxtaan nit ñi si au départ nit ñi jëlu ko jëlum tiit ba ku nekk di ragal sa morom tey loolu moo fi am ba ñu daan doo duñu la suul ci euh, ay armeel parce que da nga am bas da nga ñuy wàlle et cetera mhm. loolu mun nañu jël ni mode de gestion bi moo induire lu tax population bi stigmatisé wu parce que nit daane fi am feebar yu gën a bon yooyu te kenn du ko daw kon lu tax tey nit ñi di daw seen borom morom bu feebar te loolu bokkul woon ci ñun suñu ay melokaan loolu dañuy interroger manière bi nga xam ne moom lañ gérer mbas mi jërëjëf merci beaucoup docteur euh, professeur Fatou Sow saar di la gërëm bu baax baax di la jaajëfal euh, euh, imam Serigne Samb Bousso Abdourahmane gërëf la gërëm la bu baax a baax ci ànd beeg ñun docteur Cheikh ñu lay gërëm yow tamit euh, ci participation bi ak waxtaan wi ni ñu ko doxalee gërëm nañu tamit euh, docteur Mouhamadou Galaadio Ndiaye Galaay Ndiaye gërëm la imam jërëjëf yow tamit gërëm leen bu baax a baax mbokk yi ci seen ànd ak ñun euh, ci ITV jox leen daje beneen numéro les grandes conférences bu ci yàlla àndee fii ak boobu ngeen wéy di des ñun suñu programme ci ITV jërë ngeen jëf. Allah Allah Allah ya Mawlana.